terrain su Macky su Abdoulaye wax dañ ko doon jiñ ne daa jëndee ku du 37000 mais faute de gestion bu ni mel ak ay sidian ndax yu ni mel mais kooku ñëw ba dem bàyyi fi dem de yow nga jëlal benn direction dénkaat ko ko mhm. loolu noo ko mën a tuddee mais xanaa xam mhm. ma dénkee ma nga génne ma si régime boobu kenn sanctionné ma def ma dara Amina ñoo falu nekk président jëlaat ma tegaat ma mais dem naan dëkk bi comme luwal dafay dagal mhm. te ñeneen ñi nekk di di observer ñaroon jubal dañ naan dañuy luubal ñoom tamit. Mhm. parce que boo luubalee dara du la ci fekk. day mujjee doon lobby. day moo tax ma ne tey jii ñoom ñi tey jii ñoom ñëpp Macky Sall moo leen tooñ. Mhm. parce que bu si rëqoon diggu ñetti nit. Mhm. ñeenti nit ñeneen ñi nii la ñuy def. muy rëqoon diggu kenn bàyyi leen naa leen luubaleen te ñoom bañ doon luubal fàtte nañ ne ëllëg am na. ba ñuy luubal fàttoon nañu ëllëg am na ëllëg nag tey jàkkaarloo nañu ak moom ni mu ngi nii seen kanam mm. xamuñu nu ñuy def ñenn ci ñoom nelawatuñu ñu ngi takk lu ne ñii di diwoo lu ne ñii di jaar fu ne te rapport yi bëri nañ bëriwaay boo xamante ne fi ñu toll nii kuñ tudd rek euh, nga gis nga gis ci ay ay mbiru doy waar bëri na bëriwaay goo xamante ne man dama naan am na si ñoom nag ñu am ñaan lañ parce que ba léegi kenn tuddul seen tur ce matin am na ko ma si tuddoo ñu ne ma déet bu ko tuddati parce tamit moom kenn coow kenn waxu ko bul tax nit ñi dem wëri ji ay mbiram <laughs> <laughs> parce que tellement nous a pas mal de rapport bëri na waaye boo xamante nit ñu ñoo lire lépp ñun mm-hmm. léegi nag da ngay dem nga tànn ji rek nga dem jukki ji yu of nag yi quelque mm-hmm. nga dem jukki ji cour des comptes yi mu indi mais pour plus d'une quarantaine de rapports foo leen jëmee ak rapport spéciaux yi nga xam ne génn foo leen jëmee ku leen mën a lire def conférence de presse démb tontu na ñi nga xam ne ñooy waa Dakar dem dëkk moom tamit wax na ay yëfam salfaañe na def na lu ko saf démb waaw moom de gars yi gars yi liñ koy liñ koy toppee moom gars yi dama dégg sax tey euh, benn quotidien dem na sax bane ne carnage parce que mm. affaire yu doy waar doy waar la ko toppee parce que ñëpp dañoo jàppoo nag gestion mu fële euh, ca Dakar dem di ki clean quoi nice cool fine ñëpp loolu lañ doon wax gestion bi nice na waaye day boo ci yëree ba nga jàngat ko tuuti da ngay xam ne nag affaire yi affaire yi affaire yi sant na. man daal sant na Cissé affaire yi sant na Cissé. <laughs> man daal laa fi ni Sénégal. Sénégal est-ce que bi sañul bi sañul dugg ci ay lobi xam nga moo tax ma na ñii fi ñu leen di njëkk ñu ñëw nii. Mm-hmm. mooy ñu fexe ba sàcckat yi. Mm-hmm. ñu fexe ba du ñu amati buntu bu ñu sàccee. Mm-hmm. xam nga jàpp sàcc baax na lool. waaye nga fexe ñu bañ a sàcc ak gën. <laughs> xam nga jàpp sàcc baax na waaw waaye de coow li dafay bëri nag. ku nekk dina def nii dina dóor dina def nii wax ji koñ bi yëpp nga yàqaleen seen ay nelaw mais nga fexe ba sàcc doomu ak sa kër moo gën mm-hmm. ñi tudd ñi ñëpp nag neewuñu dañoo jël wala lu mel yoon moo koy wax mais li rapport yi génne parce que rapport il faut ñu rappeler ko encore une fois dafay taxaw taxawaayu PV gendarmerie mm-hmm. maanaam PV day ñëw ne lii ak lii ak lii la fay demee nii ak ne ak ne def maanaam yaa def wala dafoo juge bee lii ak lii moo am lii ak lii gis nañ ko lii ak lii lañ constaté ñoom lu jëm ci cour des comptes ñoom rapport dafa contradictoire bu ñu defee pare dañ lay joxaat mhm. laajaat mhm. dañuy yoo xam ne dañuy tëju ñëw sa bureau nag xool xool def ni li ñoo ko jëndee euh, caméra bi ñaata ngeen ko jëndee euh, trépied yi nu mu demee téléphone bi comme demeewul noonu dañuy def ni après ñëw laaj te def c'est contradictoire mhm. moo tax lépp lu fay génne euh, dañuy am yaakaar ne bu ci marge de manœuvre di am ci erreur yeeg yooyu du bëri mais maître Moussa Diop lañ koy waxal Dakar dem dëkk c'est catastrophique bu fekkente ne ab wata mën ngaa jënd wata bu quatre-vingt et quelques millions mais foofu bëggoon naa fa def pause sax Amina mm-hmm. mais oto bu quatre-vingts millions ci ab directeur nee na oto bi otoom la et puis euh, gars yi nee nañ ko lu tax defoo appel d'offre loolu ak inspecteur yi wax lu tax defoo ci appel d'offre ci oto bi mu ne noonoo otoom la parce que moo ko doon jënd bokkul ci loo xamante ne ci fonctionnement ko ci quatre-vingts millions yoo xamante ne xam nañu ci boîte bi lay jógee quand même ça fait grincer des dents mm-hmm. boo génnee foofu Euh, indemnité yi nga xam ne dañ ne da koo compal nattal ko boppam tamit joxaat ko boppam tamit beneen mbir la tamit bu ñu fa constaté waat maître daal <laughs> moom nag c'est un avocat c'est un avocat génn na mu défendre boppam. Mhm. maintenant moo def wala deful yoon moo koy wax. mais maître tamit nan la mën a dawalee oto ba quatre-vingts millions ak fi réew mi toll. soo wut ak borom étage yi dem ba ba ba ba ginnaaw kiri koron nga defar sa étage bu baax def ci. mais yow maître maître taal rek nga yëpp mais am na fi ñoo xamante ni fii dañuy dawal oto yoo xam jege na cent millions. Ah, Dakar gi boo yenn yenn waxtu yi boo taxee si VNM da nga koy gis. ay oto yoo xam ne jege na cent millions te duñ jëlee car rapide pour dem. non mais su ñu si ëpp si ñoom boog bu dul ñu nekk ci privé bi. am na ñoom ci privé bi lañ nekk seen business su bopp lañ yor. Mhm. mais am na fii ñoo xamante ne fii tey jii benn DG yenn oto yi mais loolu boo demee ci dëkk dëkk dëkk yu ñu ëpp xaalis foofu. ay français ak yooyu man damay faral di ak ñu bëri ñu nekk ci diaspora bi mais dañ naan ñun suñu suñ suñu ministre yi mais am na si yenn dëkk scandinave yoo xam ne seen ministre dañuy pédale vélo ba ci kii ñu takk ko ci wetu comme yow ni mhm. pédale pédale ba ci wetu building bi nga takk sa vélo daal yéeg mhm. dem dem dem liggéey mhm. boo boo amee soxla booy soxla booy dox ji parce que ñeneen xam nga lu ñu wax voiture de service service bi nga koy liggéeyee maanaam na da ngay bi non sa chauffeur sax lañ wax sa chauffeur heure de travail lay liggéey bu dee da ngay voyager mu yóbbu la bu sa heure de travail jeexee mu ñëw toog chauffeur heure de travail kese leen di lié yéen ñaar mm-hmm. waaye ànd ak chauffeur dem seeti sa coro ànd ak chauffeur dem dugg ji feneen ànd ak chauffeur dem ndugg ji yi fii kese la am ñu jël nag bon bon carburant yi nga xamante ne kii dinañ ay cent litres la am kii naan may naa la lii kii naan loolu lépp ci benn cercle kese lay tourné mm-hmm. ñoom ñoo koy am di ko séddoo nga gis koo xamante ne góorgóorlu boo xamante ne weer bi tolloo la quinze otoom dootul tàkkati mm-hmm. parce que amatul carburant bu mu ci def day génn di ko ñàkkante si tataay yooyu bu fayee ko daal di dawalaat bi 15 jours dawaat gaare ko. Mhm. donc yooyu yëpp nga ko fii gis di ko constaté nga gis koo xamante ne dañ na fal nañ ne mhm. mhm. ne oto yu mel ne lañu seen président sax du ko dawal. waxuma la ay DG ak ñeneen ak ñun nag comme ñun dañoo nekk ci société boo xam ne dañoo bëgg gis leen ma buñ la falee pour yow li ngay njëkk def mu wane mooy oto boo amee oto ñu ne tekki na. nga ne lu mu gën a kawe ak lu mu gën a ngande xeeb naa ko. moo mhm. ñu dugal ci musiba yi nekk. en tout ah, ah oui ah oui am na am na yu bëri ñu war a jooyanti am na yu bëree bëri bëri yu war a parce que man damay rapport yi bu naree jàpp xanaa xanaa kii lay yor suy bale lay yor xanaa. <laughs> parce que lii ma mënul mënul mënul mënul mënul ay kafaar la dama wàññi ay kafaar la <laughs> ma ne xanaa suy bale lay def rek ñu ñëpp daanoondoo parce que fi ñu toll nii ñii ñëpp ku leen nar a jàpp foo ñoom xam naa dañuy ñëw dañuy ñëw fajaru àbb jaara bale bi ah waaw xanaa dañuy <laughs> jaara bi ñu yor seen seen bale suba te damay ree wasoon su ñu gisee <laughs> bale bi léegi décor lañ ko def <laughs> décor lañ def bale bi comme comme njiitu réew moo ne day bale mais da nga da comprendre ñi ñu boole nar a topp tey ji après mais xam naa am na si ñoo xamante ne euh, encore ma def précision bi mhm. am na si ñoo xamante ne ay erreur la yoo xamante ne vraiment c'est dafa def ay c'est minime c'est ay jàmbaar lañ sax. ah borom waaw mais am na si ñoo xam ne tamit nag wax dëgg yàlla moom faw ñu jël seeni mbir eh, jëbbal ko yoon comme ça mu xoolaat ko parce que soo demee ba gis am na tamit beneen dossier bu ma ci choqué. Mhm. mooy bi ñuy tudd Serigne Mboup. Mhm. mais boo comprendre tey ji ak naka nga mën a gis kit jalis mhm. kit jalis yi ñu génnee des centaines de milliards ñu ne dañ ko jël dañoo war a jënd kit jalis bi ñuy jënd kit yi Serigne Mboup. moom mu ngi koy moom mi ko jëndee huit mille. Mm-hmm. bu mu ko jëndee huit mille jox ko ki nga xamante ne mooy euh, nu mu tudd sax euh, entreprise bi nga xamante ne frère am moo ko moom. Mm-hmm. entreprise bi jël ko di ko jëndee di ko jëndee ci Serigne Moup trente mille. Mm-hmm. léegi entreprise bi jaayoo ko état bi quarante mille est-ce que yaa comprendre yoon bi. huit mille la ko jëndee jox ko frère am mille frère bi jaayoo ko état bi quarante mille huit mille ba quarante mille francs ci état léegi loolu moo tax nag gars yi ne <laughs> surfacturation boobu enquêteurs yi souligné nañ ko neen surfacturation dafa ëpp. loolu kay ëpp de surfacturation dafa ëpp kit boo xam ne 8000 la génnee yow nga am si saraka am si ngeen jaay ko état bi 40 000. kay Moussa da nga naan fay mbéb am ci 8000 ba 40 000 8000 ba mais loolu nag mooy jur yenn milliards yi. après boo ko dajalee loolu euh, ci soixante dix mille kit xaw ma xaalis lay mhm. doon boo defee boo boo boo boo defee décompte bi mhm. léegi loolu tey ji nga gis ko après ci jamono joo xamante ne tey jii après dañ naan ñii ñoo ñoom ñoo ne dañuy bëgg dimbali réew mi wala dañoo bëgg jàppale réew mi yenn surfacturation te yow nga xam ne yaa ngi jëflanteeg réew mu amul doole. Mm-hmm. mais ñu bëri idée bu ñu am ak xalaat bu ñu am la lay doon. Mm-hmm. dañ naan état la. dañ naan état la état bi fi toll nii euh, suñu xaalis ñëpp la wala ñëpp ko moom jarul ñu ciy sori. Mhm. moo tax ma jàpp ne tey jii loolu enquêteurs yi souligné ci diggante Serigne Mboup ak son frère je pense que mérité na ay leeral surfacturation bu mag a mag a mag la boo xamante ne après nag yoon dina wax moo am wala amul. Mhm. en tout cas daal lu attiré suñu attention la loo xamante ne jàpp naa ne mérité na ay leeral ñu gën a xam. fu mu wàññeenti mu dégg gëtam tamit problème bi mooy doo xam koo koy wóolu parce def la mu wax wala la mu doon waaja def ñu teg ci loxo da ngay dar sa gémmiñ réew mi jaxasoo na mais nag euh, suñu problème bi njëkk mooy manque de patriotisme. Mm-hmm. xam nga patriotisme boo ko amee tey ji dëgg dëgg dëgg mm-hmm. mooy waral tey ji sa réew soxla dara sax nga am nga am benn bayaal nii nga am benn bayaal wala benn espace ni sa réew soxla dara mm-hmm. nga ne ah lii kat buñ ko jëlee ma mettre ko à la contribution de mon pays ma jox ko ma dimbali leen jàppale leen je pense que lii dinañ ci am njëriñ dina am avancement ma def ko parfois sax fi sabilillah laa koy defee loolu mooy patriotisme don de soi boobu noonu mais malheureusement patriotisme boobu moo fi nekkul léegi looy gis à chaque fois ku nekk mu ngi xool naka lay mën a roppatee ci réew mi fu ñu la dénk yaa ngi xool noo mën a sàccee mhm. loo mën a yóbbee noonu loolu ngay gis si rapport yi mhm. maanaam nit ki fu mu toog rek xam nga Sénégal dañu am ay concept yoo xam mhm. da ngay fal benn benn Amina benn poste temps bu gàtt rek nga gis Amina ngi tabax benn château. Mm-hmm. ñu ne yii am na xaar non fi mu nekk dafa mu foofu gars dañuy ñëw jox la ni ni mais est nit ñi duñu jóg taxaw ñu ne mais kii mi ngi sàcc xaalis réew mi kii est du mën a of naag du mën a xool déedéet da naan fi mu toog dafa mu caat mu ngi koy mm-hmm. sant na yàlla quoi mm-hmm. parce que fi nii yaa ngi seen kër sax toj na ko mu ngi koy tabaxaat euh, gis nga moom fi ñu nii mi ngi tabax beneen kër pour di ko wax ay baax baaxam mu di ma boqal mbaa di mu di ma sédd mu ci gën a gis sam sama yoon ci alalu réew mi sàcc sama yoon ci dara dara loolu mooy ñàkk patriotisme mm-hmm. yow boo gisee nit am wala lu ni mel wala muy def yenn musiba yeeg yenn njomba yeeg yooyu da ngay fexe noo ci amee mm-hmm. waaye doo fexe mukk mukk xool naka la ko amee wala est-ce ngi doxal mm-hmm. mais malheureusement fii ngay gisee ay fonctionnaires milliardaires et tant ñi ngi am ay fonctionnaires tant que ñu ko ci sàcc mi rek la ñuy mm-hmm. am na solo bu baax a baax Moustapha beneen kii boo xam def nañu ci suba gi Mansour si on peut les images écran bi muy nga xam ne euh, mm-hmm. quatre parmi les treize décrets yi nga xam ne le président Macky Sall jëloon na ko mm-hmm. ci prise de décision le 3 avril bi le président Diomaye abrogé na ko euh, carrément benn ci euh, moom mooy nomination comment Euh, euh, président cour suprême bi ñëw président bëggoon a bëggoon a forcé muy Abdoulaye Ndiaye benn ci ñoom euh, le président Diomaye abrogé na ko carrément waa gis nga am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ne woon dafa waroon respecte parallélisme des formes parce mm-hmm. que biñ koy def ñi ngi ko defee conseil supérieur de la magistrature foofu la dem mm-hmm. def la muy changer la muy def boo ko deful da ngay def consultation à domicile mm-hmm. consultation à domicile yi ngay def mooy jël gendarme bi jox ko mu dem ku nekk ñu du ñu dajaloo waaye mbir mi eh, gendarme bi moo koy dox eh, ci diggante ñi nga xamante ne ñooy magistrat yi siège ci conseil supérieur de la magistrature ñu jàpp ne loolu amul kon moom dafa jël décret c'est vrai yoon may na ko mu effacer waaye nee dafa waroon respecter forme bi demaat conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. effacer mbir mi mais ak lépp lu ci mënti am man damay jàpp ne tey jii président Macky la mu defoon c'est pas élégant naam bu ko yoon maye rafetul lu doy ni président cour suprême pour man amul woon pour tabb ko mhm. parce que su fekkente ne dañ la jox réew ba mu des quarante huit heures nga war a dem ngay dajale conseil supérieur de la dajale dajalewoo ak ñoom pour tàggatoo ak ñoom jaajëfal leen gërëm leen nga naan noonu damay jël kii euh, pour financier bi dama fay yóbbu kii mais di di di di tegal nit ñi mel ni président bi ñoom amul ay loxo quoi mhm. loolu man ba léegi mun ma koo comprendre moo tax président Diomaye bu ko fi dindul woon sax nit ñi dañu naan kii vraiment est-ce que euh, est-ce que vraiment waaj waaj a liggéeyuñ ko est-ce que jàppuñ ko ci gàllaaj mm-hmm. mais pour lan moo ko fay bàyyi mm-hmm. mais du ko fa bàyyi parce que def na fa ay actes yoo xamante ne c'est pas a comprendre tamit nga a demaat tamit nga nga xam ne dañuy am passeport diplomatique yaatal naa ko ancien ministre kii ancien nangam dañuy garder seen passeport ñii ak ñii ak ñi dañuy téye seen mais pour lan mm-hmm. yokk ay mesures dem ba war a dem commencé jël droit bi yóbbu ko of jël of nag yóbbu ko assemblée nationale président bi nga yokk dooleem yokk ñi nga xam dañoo war a def euh, euh, nu ñu koy waxatee sax déposé sa déclaration de patrimoine jël mbir yi di mais di def ay yoo xamante ne après finalement on n'a pas compris mm-hmm. lan moo ko xiir si lu ni mel et je pense que effacé na yi mais dina effacé waat yeneen sax parce que man dama jàpp tamit euh, nit ku nekk nag am na loo xam yaa ko moom waaye am na loo xam keneen moo ko moom. Mhm. te lekk sa wàll lekk wàllu morom tamit loolu kenn mënu koo rafetlu kenn mënu koo encouragé. leneen lay indi te euh, décision yooyu sax mu jëloon euh, ñu toll ci treize président Diomaye effacé gum ci quatre ñuy xaar mu effacé yeneen yi ci des rek Moustapha mhm. ba tey conseil des ministres bi man maay vérifier communiqué bi rek. dara <laughs> nekkoon. xam naa est-ce que dañuy def comme ni ñu defoon keroog ah, bàyyi ñu ko ñu ñu ñu tëddaale bàyyi gars yi dem bu guddi nga jékki-jékki communauté bi jógër ku nekk xam nga hmm. journaliste dafa sob. ut fii li commencé naaw téléphone yi eh saa waay gis nga saa waay. Hmm. <laughs> <laughs> wane ci yàlla mi ñu sàkk. en ah, tout en tout cas nañ def veille bi rek xool. effectivement mm-hmm, ce que ça va donner mm, mën ngeen ñëw topp sur 2A TV bu ko defee di am bépp information nga xam dina sukkee. suba nag jaara ñoo ci <laughs> la ci sans commentaire incha allah rabbi à de vingt heures. Mm-hmm. ñu farañ fàcce ñi nga xamante ne ñoom lañ tabb. ñu mm-hmm. ñu dàq. ak yu bees yi fi amaat. ak ak ak ñeneen ñuy dégg ñu tudd <laughs> ci rapport yi. ñu tudd yi tiit naa trop ci rapport yi rapport dafa dafa compliqué ba nga xamante ne. Hmm. tey jii yenn saa yi euh, maa ko doon wax sànq rek am na ñoom dama hmm. dama doon def benn émission ce matin mën a diw ak diw ak diw sax ñu ngi ci biir te kenn tudd leen ko noppi lekk yow ñi ñuy tudd tuddal ñoo nañu rek <laughs> après ñu ne ban dëkk la ñu nekk finalement effectivement doo comprendre mais daal li ñuy wax rek mooy bëri na mhm. euh, vraiment président Bassirou Diomaye déjà am na mhm. quarante yoon OFNAC teg na taabalam mhm. il a du pain sur la planche am na quarante yoo xamante ne léegi nag euh, moom mooy xool euh, je pense que dina ko jox procureur yi nga xamante ne mérité na topp ñu topp leen te bu ñu leen topp nag mu doon loo xamante ne eh, dañuy jiital médiation pénale bi waaw médiation pénale c'est très important parce mm, li ngay njëkk seet mooy naka nga def ba sa xaalis du gaatee mm-hmm. te loi prévoir na tey jii bu ñu la jàppee ci benn montant boo joxee trois tiers yi mm-hmm. boo ko daggee ñetti boo ko daggee ñetti parti nga un tiers joxe benn bi mm-hmm. danañ la bàyyi pour nga mën a lijjanti neen li des noo xam te noo ko dellusee tey jii su euh, Macky nee nañ am na si ñoom ne transigé nañ maanaam ñëw nañ kat ne reconnaître mbir yi ni mu demee ba am lu ñu jot a compa teg Mm-hmm. waaw kon tey ji am na ñoo xam ne bu ñu leen toppee euh, parce que il ne sert à rien nga jël nit ki euh, dajale ko yóbbu leen kaso ñu toog fa bu ñu génnee euh, jël xaalis bi bu ñu duggee suul xaalis bu ñu génnee sulli ko. Mm-hmm. investir ci amul njëriñ. Mm-hmm. pour man nañ fexe ba ñi nga xamante ne dañ leen toppee détournement encore je précise ñi ñuy toppee détournement ñu yóbbu xaalis parce que du ñëpp ñoo ñoo yóbbu. ñoom ne faute de gestion lañ def. ñi nga xam ne dañ leen toppee xaalis ñu fexe ba xaalis bi duggaat loolu moo ëpp njëriñ. Mhm. waaw loolu moo ëpp njëriñ fexe daal ba ba ba ba daal koom gi duggaat suñu ëslee nag ne koom gi du dugg nag